maam Ousmane Ndoye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ euh, maam Ousmane Ndoye yow militant Macky Sall nga. Mm-hmm. ci jamono joo xam ne li jëm ci élection législative yi ñu ngi koy waxtaanee. nga am mhm. mbébét samp sa mhm. ci élection yooyu. Mhm. lan moo la ci motiver. Euh, ginnaaw bu ma sant yàlla sant yonente bi. Euh, sant population sénégalaise. di ci jiital population Dakar waa bi nga xamante ne foofu soxla ko. ci ji jiital euh, Ngor Wakaam Yoof. li nga xamante ne ñun moo mooy wane. ne ñun yàlla may nañu euh, xam-xam bu nga xamante ne bi au lieu ay xulo ak xeex di saaga ñuy pro def ay proposition yo nga xamante ne yi njariñu population bi moo moo ko tax a jóg bon euh, li nga xamante ne nag aussi man actuellement nii parce que bien avant on voulait ñun au niveau de la région de Dakar plus particulièrement les Lébou et ñi ko composé ñëpp parce que aussi il faut tamit ñu bàyyi xel ne du du du du nekkul nekkul nekkul euh, ethnie lébu peuple la tukulóor yi manjaag yi sérékule yi joolaa yi ñëpp ci biir donc donc léegi comme ñun am nañu ay revendications plus particulièrement les terres ñun dañu jóg euh, bi may jóg euh, de la grande mosquée Aline Moussa Sam moo ma ma mais est-ce que da ngeen di toog di seetaan wala di xuloo di xeex ma ne ko lijaay bàyyil man dinañu proposer ñun loo xam ne di état du Sénégal gouvernement du Sénégal les les responsables yi nga xam ne ñoom ñu ngànk réew mi xam ne ñun nekkuñu fi pour xuloo pour xeex on peut maintenant leur proposer surtout si domaine boobu nekk ne leen kat a des solutions yoo xam donc bon loolu moo loolu ci benn si motivation la beneen bi ñoom à part à travers de Pape Mayel Diop ñoom a woo ne ma kat ah vraiment dañ doon xool pour Dakar nan lañu ñu mën a fexe ba nga xamante ne Dakar waaye yëpp dinañ rassembler bu autour de l'essentiel mooy que autour de kii bon man leen pourquoi pas mais quand même à des conditions samay conditions mooy y a des yoo xam ne yi teg ko yoo xam ne aussi autour de l'aéroport projet yoo xam ne suñ ko génnee man bëgguma sama peuple di jàmmaloo ak euh, les forces de l'ordre et autres di ay rayante di am ay raxas ki tout ça ça je veux plus de ça donc loolu moom moo tax man ma ne eh, naa jóg aussi bu fekkee mën ngeen jàpp ci projet yooyu ñu teg ko là man suis partant baneen bi su ngeen bëggee man xam naa ne dans les listes législatives su ma ci nekkee si kàntanu yàlla xaw ma lu ngeen ñàkkoon Dakar mais mën naa ci récupérer lu bëree bëri bëri parce que eh, sama peuple ils vont voter pour moi ce n'est pas pour l'APR ce n'est pas pour Benno Bokk Yaakaar est-ce que que choix bi ngay wax est-ce que choix bi dina yomb euh, yomb ak sama gëm-gëm lu tax ma ne dina yomb parce que xam nga su fekkente ni dama nekkoon nit koo xam ne kii dama nekk ci àll bi wala ci jegew ma sama pa toog ba bi mooy tey gis nañ ni mhm. euh, politique bi ñëpp a ngi préparé seen dossier ci jamono joojee mhm. ndax yow am nga garantie joxe nga sa dossier que ni daañu la tabb ci élection yu ñu mooy kàddu bu mujj bi ya ah. bon euh, côté boobu comme ñoom ñoo yebaloon ndaw ci man mu woo le ministre euh, le ministre directeur de cabinet politique euh, du président monsieur Augustin Tine woo euh, le directeur de cabinet Mamou Saleh pour xamal leen ne ah Mame Ousmane Ndoye ma ma leen doon wax mu ngi nii kañ lañ koy recevoir tout ça man ñoom lay déglu parce que ñoom ñoo bëgg ma samay parrainage yi ma war a am am naa ko parce que actuellement ni c'est en sur quinze si jours seulement si quinze jours la je vous dis parce que samedi bee laa commencé ba samedi euh, tey euh, démb plutôt si quinze jours j'ai pu atteindre les quinze mille euh, dans les quinze mille parrainages. merci beaucoup jërëjëf maam Ousmane. non man man maa ngi leen man maa leen di remercier franchement.